salaamaaleykum mbokku téléspectateur bu télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye itam di leen baal àq di leen dalal jàmm ci seen émission bii di wareef ñuy ànd ak yéen altine talaata àllarba ba alxames ci kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag saa su nekk di feggoog sama nijaay sama kilifa sama xarit Alaaji Njaay Loo Njaay maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la sargal di la ñaanal nga yàgg fi lool lool lool lool te wér bisimilah alaaji jërëjëf soxna dégg ngeen yàlla nañ ko yàlla ba nun ñëpp amin amin alaaji nga baare la ci lool allahuma amin ñaanu lu mu gën a sori doyul dëgg la yàlla lafal la cat ba nga yeex yegg ndax ku yegg gaare dëgg sa waajuru jigéen it yàlla fekk lépp doon sonn amin bàyyi baax na lool. waaye ndey passeport diplomate. dëgg la muy neuf mois moo sonn. bu fekkee njëriñ nekk war a békk. dëgg na fekk lépp. amiin amiin borom kër gi ni ma koy faral di wax rek. ndeysaan na ko yàlla gën a jàppale. wallaay wallaay ndeysaan. yokk léppam. ba daraam du tardé. dëgg la kenn bor. yéene na ñëpp jàmm. ndeysaan ñaan ay waajuram. Hmm. ak i jigéenam yëpp ko jàppale. tabarakallah yuusu neexut a bëgg waaye neexut a bañ. lu yàlla dogal la ko yóbbu nangu. ak ñu koy jàppale ñëpp di siyaar nag sama xalifa sëriñ Siidi Cheikh Abdoulaye Mbacké macha allah yal na suuf suñ boobu fan ak rakkam yëpp ndeysaan eh, soxna diggan mm-hmm. eh, ndeysaan abi géey démb lañ ko doon ñaanal ndeysaan ndey jaañ nuyu na la waaye li ma xam daal mooy mm. ku bu baax dëgg bon daal daa war a tukki te yàgg fa te duutu ñibbisi ndeysaan ndeysaan bëgg lu baax dëgg la soo baaxee dem mm. soo boo nee dem. baaxal bala ngaa dem. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. yàlla na lañ jot Serigne Touba nag. yàlla na ko dimbali. wallaay wallaay ndeysaan. te gën koo wàllu ufal ko Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. Euh, soxna Assu Mbacke di sëtub nag Cheikh Amadou Fadal Mbacke. ndeysaan ñu dénk ko Serigne Ousseynou Kane. ndeysaan. Euh, nee na yàlla na la Serigne Fallou dimbali. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. nag mooy nag. ndeysaan ndeysaan lu mu ñaan nag yàlla dimbali. ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf. Serigne Ousseynou Kane lañ ko dénk. ndeysaan waaye soxna Assu daal mm. bég na ci yow te deret Serigne Fallilou la. alhamdulilah ni ngay def na xale yi roy. ndeysaan ndeysaan fu ñu dem man faa nekk. di soxna Asi si wax rek. ndeysaan wallaahi la ji mën soo borom daara ji man soo kooku sama mag la. gis nga Mamadou. Uh-huh. Euh, jigéen. Mm-hmm. yiw baax na fu ne waaye ci jigéen la gën. dëgg la alaaji. moo ëmb lu ne. dëgg la alaaji tuubeeguñ ko. ndeysaan bis buñ ko bee ba njëriñ juddoo na yiw ga ko may. dëgg ñaanal bari na kaar yàlla na la topp. amiin amiin yiw rek di gërëm di sama doom nag. Ahmadu waaw seen jàkkaarloo xam nga ay xol. <laughs> Uh-huh. yal na yàlla wallu. amiin yaa rabbal waaye ay xol bandee nañu soree. dëgg la bu ñu dajee soppante. dëgg la dëgg la. fanaan ma fanaan yëmbal. dëgg la. bi mu xëyee mu gëdd armoire la ma dëgg la ngeen génne même couleur parce que dajeeg dégg ndek noo bokk couleur. <laughs> alaaji dafa teel <laughs> alaaji dafa teel loolu kenn mës ko gis wala dégg waaye gis naa li ngeen def waaw maa ngi koy ñaanal rek. waaw waaw te nii buñ ko teggi. ndeysaan macha allah adduna yàggul. ndeysaan ndeysaan. yàggul barki di wax naa ko Asman Soor. ci mariage doomi Yaasin ji Yaasin mu baax mi. wallaay ndeysaan. dafa ne bég naa sama rakk yi. ndeysaan. ma ne ko dañ lay roy ci lu baax la nga nekk adduna yàggul wallaay macha allah te démb nag. Mm. lu mas a yëngu ci kër ñu ne xanaa géwal ni wu dëgg dëgg la nan ko indiwaat bu demee dëgg la dëgg ndax puso ba ndax puso ba dëgg la allah ci yal nañu yàlla defal jàmm amiin amiin ñi samay rakk la ñi samay doom barkalla yàlla sàmm leen nag ba ñu yeggale ñoom li bëgg ba ñu nekk barsàq di seen i mag mu baax nga fu ñu la fekk yaa ngi wax lu baax macha allah li may faral di ñaan moom la àddina bi ñëpp ñaan allah ah, ji téeméeri atti ah, téeméeri ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay wallaay ndeysaan sama cheikh Youssou Ndour daf ma ni li ma gën a jaaxal si digg ak diggan ma ne ko ci lan mu ne day jigéen ngay góor ndeysaan ngeen romb trois cent te dara mu sa ñaaw wallaay wallaay wallaay ma ne ko ba yoon mille du ñaaw wallaay du ñaaw wallaay macha allah ndax teraanga bu jiitoo waxaale wàññi li du bari dëgg la ndax kersa ga dëgg la ak la jiitoo tax dëgg la dëgg la day tub traa nga wax am am teggin ndeysaan ndeysaan mais fu ma jaan nag ndeysaan te togg nag njoganal war koo mën a yàkkal ndeysaan ndeysaan <laughs> ndeysaan fi te wér yàgg fi te wér ñun comme ni nga koy waxee rek saa su nekk talaata euh, nga jàkkaarloog sa doom <laughs> waaye nag alaaji nag ma jàkkaarloog sama xarit àdduna bi yëpp xam nañ ne eh mbay ah, mooy nuyoo bi loolu àdduna bi yëpp xam nañ ko <laughs> mbay maa ngi lay sargal jërëjëf ajërëjëf xanaa di béggati rek di ndeysaan ak di kontaanati ndeysaan ndax sunu daje dafa nekk daje boo xam ne bii daje bu am solo la la daje nag bu ko mbëggeel lalee mm. ni ko alaaji Njaay loo sama bu baax bi waxee mm. tubaarkalla ree da cay bari dëgg la te ree dafa ci doomu aadama dëgg la dëgg la mbay dëgg la mbay dina tax tubaarkalla tubaarkalla sa fan gudd ndeysaan kon maa ngi leen di sargal di sargal mbokk auditeurs yi jërëjëf di sargal bu mbaax mbokk téléspectateurs yi ndeysaan di wax ne nag Papa Ndiaye dafa dafa ubbeefu fort dëgg la di Alaaji Abi Jéey dëgg la mhm. bi noo sos Sport FM mhm. moom moo fa nekkoon ak Cheikh Far Mbaar Ngóone mhm. yor course bi ndeysaan ah, waaw ànd ak ànd bu rafet ndeysaan nekkoon nag nit ku gore mag la woon moo xam ne mii du du dafa dafa wàcce woon boppam. Mhm. macha allah ni Baye Ndiaye mel. ba ba doom yi sax mu maaseel ñoom di wax ak ñoom wax bu sori. ndeysaan ndeysaan noonu la El Hadj Abi Dieng meloon ah moom. solo waaye dama ne ajot ndey jaañ baax baax na de. waaye dee dee Baye itam doom yu baax baax. Mhm. ku ñëw ci bësam bi. di nga xam ne bàyyi na bàyyi na tubaarkàlla waa kër yu baax. macha allah ñu ngi ko ñaanal yàlla yéeku ci ajjana yu kawe. ndeysaan di bégg nag ajaa déggin. ndeysaan déggin. Mhm. gor yi nañu baax jërëjëf baax rek am résultat baax rek am dëgg la. bari na yu xew ci réew mi. te amul résultat baax lalu ko dëgg la. kon nan dellu ci baax. dëgg la dëgg la dëgg la la dëgg la macha allah bokk na ci li may li tax ma lay yàkkamti gis gar mi da li nga wax ne danga am ay nopp gar mi gar mi fi ñu la toog yaa ngi wax lu baax. Ah, moom laa ah, bëggoo dégg lu bon. moom laa bëgg a dégg yooyu tamit day dundal. Eh, Adja dégg ngeen démb. Ah, dama dem eh, dëkk bu ñu naan euh, Mbay Fall. Mm. maa ngi fa jógee presque deux heures du matin. ci baax rek nag. dëgg la. li ay li Alaaji Njaay loolu géwël dafa am yoo xam ne yii ci guddi la koy dox di ko régler. dëgg la loolu rek nu war. dëgg la dëgg la. ku defuloo loolu rek tebbi nga yoon dëgg la teggi nga yoon bi dëgg la. te nag Adja dégg ngeen maa ngi lay wax nii. dëgg la bu nu sosee maam Adama aw ba léegi. dëgg la kenn mosunoo moom. dëgg la dëgg la dama nangoo ci jigéen ju baax. ju ñu ajut kumba mu ne bu leen dénkaane seen bopp. dëgg la ndax ku dénkaane sa bopp bés bu la sama bàjjan sa bopp. sama bàjjan ku baax. waaw bu ñu la koy rendre. ndeysaan da nga ci gis loo naqari. ndeysaan ndeysaan góor <laughs> <laughs> yëmbal yow nga gëdd sa armoire ca parcelle ca parcelle ngeen daje waaw ñu daje xool yi la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 ñaan buur bi nga xam ne lu fi yegg lu fi sotti rek ci coobareem la yal nañu mottali lépp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp lu mu ñu te defal rek yal nañu ko muurloo ci barke alquranil karim àndaat ak yéen ba tey dugg nag ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi dugg ci case de santé ak poste de santé yi doxantu ci néegu lënd mi ndax ñàkk ba ci mbedd mi ak ah, kay am na ñuy nemmeeku bu baax a baax malaati waaye nag dellu nag di ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy docteur bu mag bi moom yaaram bi yàlla nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbbu ak bu feeñ ci barke la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah ñuy àndaat ak yéen ba tey dugg nag ci prison yi di nemmeeku bu baax a baax ñii nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw ndax béréb yooyu jombul kenn de bu ñu fàttee ni ñu jub lool lool lool ñu nga fa ñu safaanoo nga fa waaye ànd ak lu ci mën a ne sañ nañu nag ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy tege natt du kenn yal na leen ko teggil ci anam bu gën a gaaw ba ñu dellu ci seeni biir njaboot te yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim alaaji saa yu ñu fi toogee dina yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun liñ ci namm li nga def nii la jaali képp koo xam ne jamono jii ñu toog di waxtaan mel ni fekkee nañu mel ni tal nañu yaa ngi ci tiis yaa ngi ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom mi ndax àddina du kër mm. demal maa ngi ñëw rekk la fa tabaarakàllah macha allah alaaji mu mel ni nag xam ngeen ni seen émission bi di wareef ay thème la mm. mbay ñu nekk ci thème bu rëy de ah la nga fa bàyyi woon semaine dernière jógu fi jógu fi mais gaañi ñaanoon coow laa ngi ne ko gaañi ñaanoon nañu gaañi ña mbir bi mënu la fay j'ai j'ai récupéré beaucoup de téléphones yoo xam ne dañ na daal thème bi nañ ko fi bàyyi ba ci kanam. gis nga ko ci loolu nag la ne <laughs> fa tabaarakàlla macha allah ñaan tamit ñu ñuy dégloo xel saa ñu toogee ndax tamit xam nga ni li nga wax ay nopp ga mi la ñuy wax xam nga tamit fa tabaarakàlla macha allah suñu sañoon lépp lu ñuy waxtaanee dañuy dégloo xel ndax ŋaañ mm. taxuñu jukk mm. wax lu ñaaw taxuñu jukk mm. xarab taxuñu jukk waaye waxtaan ci suñu biir ubbi leen ba lépp loo xam ne rek gàkk-gàkk la ñu xool naka lañ koy alcoolé rek mu jóge fi dañu ne faru rab ak coro rab xam nga dégg ne daaw tegoon nañ ko fi ñu ne am na de. Mm. waaye est-ce que liñ ci gàll bëriwul est-ce que saaku bi liñ ci def bëriwul lu mm. ñëw rek ñu ne coro rab lu ñëw rek ñu ne faru rab est-ce que du jikko yi mm. la war a seetaat defaraat ko ba lépp loo xamante ne lu ciy xajam la rek ñu génne ko. xam nga ndax topp sa naf su am na fi xëy suba ñu naan coro rab ñu mu amee ci góor noonu la amee ci jigéen. fa tubaakàlla macha allah te àddina dara yàggul waaye tamit ñii nga xamante ne lal nañu escroquerie ci biir mbir mi waaw di escroquer nit ñi rek. Mm-hmm. waaw waxuñu nag suñu kilifa diine yi waxuñu sëriñ su tedd si ñi nga xamante ni ñu ngi toog seen seen seen seen seen seen seen seen kii yi sajaada yi waxuñu ñooñu déedéet yor seen aliwa yu baax yi déedéet waxuñu ñooñu. ñii nga xamante ne. ndeysaan ndax ñiy gàmm ak ñiy ras dem bokkuñu ñi nga xam ne ñooy turiyande ndax jigéen moom. ku ko tiim naan ko su ma sang la kooku dundatoo diine nag nañu xanti dëgg. Mm-hmm. su meekul ma sang la. Mm-hmm. kaay ma bind sa naq. sooy ñëw sol lu xonq te gàtt. te bul jiital dara. defal perkaal bu ñuul. wala li ma li nga xam ne moom laa la war a fajee man maa maay jëfandikoo yow. Mm. Ah? Ah, ah ah wala boog ah, il faut nga jotee man ah alaaji nee na ma may bàyyi laajte ndax ay affaire ay ndox ak lu ne am na fi alaaji tey nee nga ba bu ma waxati xam nga yooyu yëpp nag suñu ko waxee nga xam ne ay saay saaya ko lal sans ñi nga xam ne tamit góor ñi ñu ngi leen di dóore manto ba ñuy jaay seeni kër di jaayi seen oto danga am coro rab loo am mu yàqu di leen escroquer yooyu yëpp mu ngi ci dëkk bi ñu fas yéene ànd ak yéen ubbil leen téléphone yi soo leen di wootee Sénégal 88 628 22 22 sooy wootee ci réew mi 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 xanaa rek. di ñaan yàlla door ak bisimilah rahmaani rahiim waaye delluwaat di ñaan buur bi bi alhamdulilah bil alamin waaye mbay balaa ñuy dem fen ci ci bagaas yi dañuy dem waaw dañuy dem kër aram jàppale ak ina libaas ak libaas ñooñu nga xam ne ñàkk leen fréquenté erreur bu rëy a ngi ci dañ dem seetaante ñëw